بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما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 nasrun min allahi wa fatun qaribun wa bashir al mumin bismillahi rahmani rahim sadaqallahu mawlana al asim wa balaxa rasul karim wa nahnu ala ma xala rabbuna wa xaaliquna wa rasiquna mawlana min asaidin اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوة من سهو أو تعريف كلمة أن مودها أو تخير عرف أو تقديم aw taxyirin aw siyaadatin aw noqsaanin aw taawilin ala xayri ma ansaltuhu aw raybin aw zakkin aw taxjili inda tilawatihi aw kasali aw surhati aw saqlisa aw waqfin bi xayri waqfin aw idxaamin bi xayri mudxamin aw isnaari bi xayri bayaan aw maddin aw tasdiidin aw amsatin aw jasmin aw xaraam bi xayri ma kaan واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا وارزقنا فضلا من قره مؤاديا أقوه محل هدايا والقلب والسان وأب لنا به الخير والسهادة والبصارة والأمان ولا تقتم لنا بالشر والسقاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا النوم قبل وكسلان آمنا من أصاب قبر ومن سهال منكر ونكين ومن أكديدا وبي وجوهنا يوم البحث واحتر رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر إسابنا وساقل ميساننا بالأسنات وثبت أقدامنا على صراط وسجنا وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرم بالقائد أستجب دعاء أنا بأق التوراة والإنجيل وصبر والقرآن آتنا جميع ما سألناك به في سير والأخلاق wasidna min fadlika alwaasihi bi juudika wa karamika ya rahimu ya rahman allahumma salli ala sayidina muhammad saabi sariati walburhan bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma anfa'na warfa'na bil qur'ani asim wa barik lana bil ayati wa zikri hakim wa taqabbal bina innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim اللهم زينا بشنة القرآن وأكنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلوة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وأصحاب الآخرة بأرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بأقل القرآن allahuma ijaalil qur'aana lana fi dunya xarinan wa fi xabri monisan wa fil qiyamati safian wa ila sirati nuuran wa ila jannati rafiqan wa bayna nar wa bayna jaaman wa ila xayrati kulliha dalil wa man bi fadlika wa juudika wa karamika ya akramal akramin allahuma ihdina bi hidayatil qur'an wa afina bi inayatil qur'an wa najina min naari bi kiraatil qur'an wa adxilna jannata bi sifatil qur'an warfa darajatina bi fadlatil qur'an wa kafir hana sayyihatina bi tilawatil qur'an ya sal fadli wal ihsan allahuma arzuqna bi kulli harfin min alqur'ani alawatan wa bi kulli kalimatin karamatan wa bi kulli ayatin sahadatan wa bi kulli suratin salamatan wa bi kulli jushin jasahan wa bi kulli isbin asanatan wa bi kulli nisbin nihmatan wa bi kulli rubhin rifatan wa bi kulli sumnin sanahan allahuma arsuqna bil alifi ulfatan wa bil baai barakatan wa bi taai tawbatan wa bi zai sawaban wa bi jimi jamalan wa bil hay ikmatan wa bil xaayi xillaana wa bi daali dunowan wa bi zali sakahan wa bi raaxi rahmatan wa bi zai sulfatan wa bi shi sanaan wa bi shi sida wabil saadi sadxan wabi daayi di yaaxan wabi taayi taxran wabi saaysan wabil ayni ilman wabil xayni qinaaxan wabil faayi falaaxan wabil xaafi xurbatan wabil kaafi kifaayatan wabil laami lutfan wabil miimi mabsatan wabil nuuni nuuran wabil waayi wuslatan wabil aayi iddaayatan wabil laali aalifi liqaa wabil yaayi yusran wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi taahirina ajmahin allahumma barik sama ma qaraxnaahu wa nuura ma talawnaahu ila ruuhi sayyidina muhammadin alayhi salaam wa ila arwaahi ashaabi radiyallahu anhum ajmain wa ila arwaahi jamiihi l anbiyaai wal awliyaa wal mursalin wa ila arwaahi abaahina wa ummahatina wa ixwaanina wa asdiqaa'ina wa azatisaatina wa masaa'ina xaalisan wa li arwaahi jamii al muminina wal muminaat wal muslimin wal muslimaat laxyaahu minhum wal amwaat ajmaxina amata wa ila jamii ashaabi al xayraati min al mumin wal muminaat allahuma ansur man nasara diin waxsul man xasala muslimin allahuma ansur man nasara diin waxsul man xasala muslimin allahuma ansur man nasara قتل مسلم آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وآمنك على وعي السماء وأعينا على سنته وآمنا على ملته واجعلنا من آل زباءته وانصرنا في سمرته واسقنا من عوده يا أرحم راحمنا يا رب العالمين اللهم اجعل صواب قراءتنا آسه لمن جعلتنا سببا لاجتماعنا آسى وآته بالقرآن في قبره ساعة الواسعة والأجة البالغة وقول الثبيت والنور مستبين في اللحد المسلم وجع في الحرب أن جنبي وارحمه واغفر له ولوالديه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين allahuma atihi bilqur'an ilhamna yowma albasari lakbar wa raqaha inda sida wa taskila misani inda qifati wa taysira isabi yowma alusrati walwuruda ila rahmati walmaqfirati ya arhama rahimina ya rabbal alamin allahuma ma ataka bihi min asanatin wa taqabalha wa ma ataka bihi min sayhatin fa tajawaz anhu bi fadlika wa juudika wa karamika ya arhama rahimina ya rabbal alamin allahuma ij'al zawa ma qara'nahu wa barakatan ma talawnaahu min kitabika al-aziz adiyatan wasilatan wa rahmatan mutasitakum fawqa sawti nabii wa la tajhar allahuma ij'al zawa ma qara'nahu wa barakatan ma talawnaahu min kitabika al-aziz adiyatan wasilatan wa rahmatan mutasilatan ila qawli ka jahri ba'dikum li ba'din اللهم اجعل سواء ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز أدية واسلة ورحمة متصلة منك إلى رحمة اللهم أوصل ثواب ذلك إليه واجعله نورا يسعى بين يديه اللهم أكرم به مقامه ويسر به إجابه وداعي به ثوابه واجعل الرياق مختوم سرابه allahuma unis wahdatahu warham qurbatahu warjawas anu bi falika wa juudika wa karamika ya arhama rahimina ya rabbal alamin allahuma tawabana muslimin la mubaddilin wala muqayrin wala fatinin wala maftunin amin ya arhama rahimina ya rabbal alamin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 qul wallahu ahadu allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq min sharri gaasiqin idhaa waqab min sharri naasit bil qadar qul a'uuzu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas min sharri waswaasil khannaas alif laam miim innamaa sabiilu wa laa tujaadilu allahu min kulli karimin akramu man aamana wa qaada lahu takarramu aslim lahu kulla kaarimin wajjihu bi zikri bila kufran tukfa isaabu allahumma salli ala sayyidina muhammadin faatihi limaa ughliqa wal khaatimi limaa sabaqa naasiri al haqqi bil haqqi wal haadi ilaa siraatikal mustaqiim wa ala aalihi haqqa qadrihi inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna alan nabi yaa ayyuhal laziina aamanu sallu alayhi wa sallam taala subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun wa salaamun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaah allahumma salli ala sayyidina yàlla na borom bi nangu ñaani bu ko nangoo yàlla na ko fulandi bu ko fulandi yàlla na ko defal téeram jëfam ak bépp barke yonent bi sala barke Seexul Xadiim barke Seexul law yutiicukum fi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe fii yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam Euh, di santaat borom su di santaat su borom baax subhaanahu wa taala ci daje bi di ko santaat it ci bi ñu fi suñu war bàyyi ñu teewaat ko euh, mu mel ni gis ngeen ne liggéey bi commencé nañu gis bu tedd bi muy ca commencé ko ci njàngum alxuraan ak xasida mu mel ni gis ngeen ne ki doon jiite njàngum alxuraan mi ci ndigalal kilif seenam Serigne Baye Mbaye Ndiir muy di ku ñuy wax Serigne Ndiir di seet ci Serigne Baba Ndiir kon moom la ñuy jox kàddu gi rek euh, mu jàllal ci ay kàddu yu gàtt ngir gën a yaatal rek lenn ci bis bi ak li waral li waral bis bi ak li nga xam ne buñ xëyee moom la ñuy doore bis bi kon bisimilah mel ni ki leen di njëkk a jox moo di ku ñuy wax Serigne Ndiir du doon ci bàyyi ci yaroon Ndiir di sët ci Serigne Baba Ndiir kon bisimilah Serigne Ndiir auzu billahi min sheytaan rajim wa inni a'uuzuha bika wa zurriyataha min sheytaan rajim rabbi a'uuzu bika min amaasati seyaatin fika rabbi yahdurun bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina sirata almustaqima sirata alladina anamta alayhim xayril maxdubi alayhim wala dalin kon mbokki jullit yi fi teew ñëpp kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu nuyu bi ñu xam muy bob lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ngi leen di jéggulu kàddu yi nga xay ngi ko fi yëkkati daa mënta ñàkk rek ñu ngi leen di balu àq te di leen bal àq tey wax ne bis bi lépp loo xaay lii waaye yëngu na ko ci ak nu mu man di doon ak nu mu man di toll yal na ko yàlla nangu bu ko nangoo yal na ko fulandi tasaare ko ci àdduna bépp xaj na ci mboolem li nga xaay ne jàng nañ ko fa ci xas ci alxuraan jàng ko fi ci xasaayit julli ko fi ci yonent bi def ci ay astaxfirullah yal na yàlla boole lépp nangu ko fulandi ko bi jaayi Seydina Muhammad rasulullah salaam defal nu jàmm def ci réew mi jàmm àttan na ko te war nañ koo ñaan yàlla nañ ko yàlla boole defal nun ñëpp eh, man nag samay wax daanaka du ci bari ndax ay kilifa bi nekk te ginnaaw kilifa itam am naa fi samay rakk yoo xaay ni ba tey ñoom itam mën nañoo yeggale waxtaan wi dafa mënta ñàkk rek ma wax ci ay kàddu di fàttali ne bis bi daal li ko waral mooy dafa am jëmm ju baax ju liggéeyal boroomam ju liggéeyal yonent bi ju liggéeyal sëriñ Touba liggéeyal aw askanam liggéeyal ay mbokkam bàyyi koo fi bisab tey bii bokk ci bis yi nga xaay ne ci la fi jóge woon ñu di ko fàttaliku muy ñaar fukki fan ci weeru Saabaan ñu di ko fàttaliku fàttaliku nag day am lu mu indi ndax fàtte moo tax ñuy fàttaliku da ginnaaw dañ koy fàttaliku nag li ñuy fàttale mooy ay jëfam ak i jikkoom nu nu mu nekke wan ci àdduna nu mu nekke wan ci ndigal nu mu nekke wan ak i bokkam nu mu nekke wan ak ña magan nu mu nekke wan ak ñamu magan nu mu nekke wan ak i taalibe loolu bu ñuy fàttaliku nit ku baax loola la ñu koy fàttalikoo kon bu nu fàtte loolu mukk ne bis bii dafa am ku baax ku liggéeyal boroomam ku fi jege nu di ko fàttaliku kon bu nu topp rek bernde yi ak euh, mbooloo mi loolu du doy nanu fàttaliku la mu daan def maanaam nu jàng alxuraan di jàng ay xasiir di def ay astaxfirullah di julli ci yonent bi di joxante doxante mbokk gi bu rafet rafet rafet di saafoonte bu baax a baax ci bis bi ba keroog bis jeex nu ñaanalante di ko teeruwaat ne ngeen waaye bu nu topp rek ci lekk yeeg naan yi bu nu koy màggal nan ko màggal ni ko Sëriñ Tuubaa waxan ci jës bu rek tax si moo bi sunnati yàqur naal jinati ah, ak ñam yet foo man taxaa man ay xaali man loo xar-xara rek nan ko jàppe noona waaye bu nu fàtte lii ba mu yóbbu nu ci yeneen ndax yi ci des yëpp baax na ndax joxe aw ñam baax na joxe ndox mu sedd baax na waaye nag jox nit ñi yitte ubbil leen sab xar kanam ba ñu ñeme la lu baax la ci bis bi waaye di jàng alxuraan di julli ci yonent bi di digle lu baax ñi ngi ko war a digal lu baax ci bis ndax tey jii yéen ñii ngeen xay ne yéen ñëpp tey jii ci maam baaba ngeen bàyyi ko wala ngeen jegeñ maam baaba nekk fii tey jii bu nit ñëwee ci yéen li ngeen ko war a wax rek mooy fàttali ko boromam rek. ko borom rek ak ni maam baaba nan doxe loolu dong moo fi wax ji waaye leneen lu ngeen wax itam du doon du doon wax joo xaay des na ko gërëm daal lii daal la ñu gën a gërëm képp koo xaay ne kii daal ñëw na fi yéen sos fi yéen bala ngeen koo ñaanal bu dem na ngeen koo dénk ragal yàlla ak ak ak ak ak dox ak mbokk ak ak ak def lu baax loolu rek moom man nag maa ngi leen sant bu baax te di leen ñaanal te di leen gërëm yal na yàlla dolli leen a taxaw bàyyi muud mii nga xaay ne moo fi nekk tey jii yal na yàlla gën a tëgg fanam bi gën a gën a gën a gën koo kartanal ci kàttanu yàlla mbaaxu yonent bi yàlla mën na ko te am na ko yàlla dara tëwu ko nan ko ñaan nun ñi nga xaay ne noo fi nekk itam yàlla bàyyi na fu la yàgg-yàgg te bàyyi na ko sunum xel te def nu ay jullit te def nu ko Serigne Touba nangu ak taalibu yàlla nañu ko yàlla defal ci barke Serigne Touba yéen ndaw yi nga xam ne yéen nekk ci dëkk bii di taxaw ci dëkk bi ñu ngi leen di ñaanal kem sunu kattan kem sunu kattan amut lenn loo xaay lii nit a koy am ci lu baax mbaamu di ko def te yéene wun leen lu ëpp loola wallaahi asim yéene nañ leen ko yàlla na leen ko yàlla defal yàlla bu ngeen am mennam ndox yàlla na yàlla yëkkati leen ba ca kaw ba ñëpp seen leen te dootu ne yegg suuf ci yàlla mën na ko am na ko yàlla ko man nag sama xol seet na guy wax dëgg yàlla ndax euh, euh, yàlla nañ ko fekkee daal néeg yi déwén yàlla bu kenn wuute ndax kenn man wax dëgg yàlla yii nga xay ne tey jii ah maa ngi ko jiite fii nii di ko def bu ñu delloo ca ginnaawe ginnaaw day mel ni war na ma te day mel ni itam borom bis bii moo ko defan ci man mu leer ñëpp ma leeral ko ñëpp ku mu leeralu tan mu leer la am na ñu ki xam fii dara. maam baaba ndiir damaa yaakaar ne ndax lépp lu nekk ci man moo ko ci loolu laa am yaakaar te am naa jot te bari dégg na ma ndax sama baay dama daan jàpp nu ñëw ci toolam bii penc bii bu jógee fii heure bi yor yor dëppoo par solom bu xong bi jëm ca jëm ca jëm ca silaan baay daal di ma ne sa maama ma daal di ànd ak moom dem bu ndee mu daal daa mu nii poos bi génn tël si ak juróomi dërëm booba juróomi dërëm yomb topp sama bopp bi daraay sëñ buso sëñ buso sëñ buso sëñ buso di tufle rek ba mu tooy xëpp moo tax léeg-léeg sax ma ci sama xel demee du ma nanga watu fan yii rek laa watu waaye bàyyi naa watu ca ginnaaw ah loolu mu leer ñëpp may ñëw ci moom mu def ma moo noo xaay ni yaakaar naa la ah sëddi mu ko def bari wutante Mor mi am na ci lu mu leer lu ko leer takkusaan ji ma ko mujjee su yaare fii ànd ak Mor ñëw ci moom di ci wutal fa sa gémmañ di yaakaar naa matul fukki fan mu jóge Mor Mbaye mi leer na muy ku ma téye woon ma fonkan moo taxit ma faale wu ma nag kenn ci moom ndax xam naa la lam ma defal te doyloo naa la mu ma defal te am naa ci yaakaar te yaakaar naa jaar naa ci barab yu baree baree bari wala yu rekk ma ci génn te yaakaar naa moom kenn ëpp ko kon maa ngi leen di man li ma war li may li may def war na waaw bari jërë ngeen. jërëjëf. mu mel ni kooku doon jottali kàddu yi nga xam ne mooy kàddoo yi soññewaat ci bis bi ak sababu bis bi ak borom bis bi muy ki nga xam ne moo taxawoon njàng mi di Serigne Ndiir kon mu mel ni ñu ngi jox kàddu gi Seydina Aliou Ndiir di doomi xalifa bi Serigne Mouhamadou Ndiir moom Cheikh Babacar Ndiir di ñaan suñu borom dolli ko fee yàggal te guddal o fanam ba lim yéene ci toolu Mame Modir bi yéene ko ci liggéeyub Serigne Touba bi lépp mu def ko dañu ànd ko moom kon ñu jox Serigne Seydina Alioune Ndir muy doomi Serigne bi mu yëkkati ay kàddu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp soppe xarit am ngi jàmm di fab nuyoo boobu ak siyaar bi di ko teg ci loxob sëriñ Bassirou Ndiir mii fi toog nga xam te ne moo fi nekk di jëwriñu sëriñ Mouhoudou Ndiir moom Cheikh Ababacar Sudda Ndiir di baaba di mandiir euh, di fab nuyoo beeg siyaar bi ak cant gi lépp di ko jotale sëriñ Bassirou mi nga xam te ne rakk sëñ bu Ndiir te sëñ baaba mooy waajuram loolu fi yëkkatit ca kàddoom ci lañ koy wax dafay mel ni nag li nga xam te ne sama kilifa gi njëkk wax na ko muy sëriñ mëntu cee dolli dara ndax ci ku am ak dégg lépp rafet na mat na xanaa di ko ñaanal rek taxawaay bi yàlla na gën a rafet yàlla na gën a jëm kanam mboolem ñi fi teew itam te doon jàng alxuraan ji seen yëfa seen bopp ngeen ko defal lu ci waaye def sa bopp nga ko defal dafay mënta ñàkk nag ñu yëkkati ci kàddu waaye na kenn ku ci nekk xam nga la war ci jëmm jooju di Cheikh Ababacar Sy Ndir mi ak Cheikh Modou Ndir kon su ngeen toogee fi di fi jàng alxuraan war na leen yàlla na gën fi yàgg a teew si te lépp luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu te dëkk bii nga xamante ne amulut moom nga xamante ne mooy waaye daayira bii takku def wenn say fas ne liggéeyal dëkk bi ak mag gi fi nekk noo ngi ñaan ci barke bi ki nga koy defal yal na yàlla kàttanal yal na yàlla wëral seen i cër yal na yàlla yokk xéewal yi ndax doon gone wan at dëmboon mi ginnaaw jëm ci lu baax loolu jar na sant suñu borom ndax nit juddu na fa mu war a juddu te defut loola ca xelam defu ko ca ay mbokkam di ko def feneen kon suñ juddoo fi yaroo fi fas yéene liggéeyal mag ñi fi nekk kon mag ñi la leen war a ñoom itam mooy ñaalal ndaw yi fañ bëgg àgg ñu àgg fa yàlla bu ñu am benn pakk bu leen gàllankoor ba kenn ku ci nekk la nga yéene ci sa xool ak sa xel su mu defal la borom bés bi attan na ko man na ko yàlla na ko def na ko seen jotu si ay batin yàlla bu mu doon suñu mujjug jataay yàlla na ko fekkat ay déwén yu bare bare bare bare bare ndax nii ko sëriñ waxee noonu rek la yàlla moom jeexul du ma soo jeexal te dara ump ko te moom may yontu yàlla nu mu fanaw te jógu fi du fa ma soo jéeg kon sañ na koo ñaan mu tibbal nu ci ban liñ yëre ci dëkk bi liggéey ko yéen fas ko yéen liggéey mag ñi suñu borom defal na ci kàtt nu def ko na yàlla ko def ko njot saay sant ñëpp gërëm ñëpp li sëñ wax rek li ma leen wax lu ma ta wax na ko ndax gan bu fekkee ne da ngaa woote muusi la su dikkee la sabab bés ba war nga ko ko xamal ba la tax mu dagg ay itam ñëw fi xam ne lii moo tax mu bàyyi lépp ñëw fi ndax màggal dara jiitu ci jàng alxuraan astafurlah salaatu al nabi xasaay la ca des nag bu waxtu wajotee muy benn des na ko def waaye lii mooy farata ji ka nga xam te ni mooy kilifa ñu ko def lii koy jëriñ waaye ñam yi li muy bari bari li muy neex neex jëriñu ko dara kon lii mooy cosaanu màggal ndax loolu suñ Tuubaa santaane woon màggal Tuubaa saa bu dikkee day wax ne tàmbalee ci ginaar ba ci gileem lu ci waaye man defal ko ko ci kon loolu moo di màggal kon sant na ñëpp gërëm ñëpp yàlla mii borom jàmm tudd ko jeexal yàlla ko boole defal ci saahir ci baatin yàlla leen fi suñu borom doole ngeen yàgg fay di ko jàng lépp lu ngeen ci ñaan suñu borom nangu ko daal muy su ci ñàkk teg kàddu waaye ku am ak sëriñ matal na lépp jër ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu Euh, mu mel ni su ngeen gisee jotaay bi fii ñu nekk nii rek euh, yéen gis suñu dend ak kenn ci jëwriñu sëriñ Mouhamadou Ndiri sëriñ Alla Ndiaye euh, ci Lambaye di koo xam ne ku ràññ ko la ci liggéey sëriñ Baba Ndir ci toolu sëriñ Mourou Ndir ñu di ko gis waxtu wu nekk mu ak yëngum ak ak dalam yëpp mu jébbal ko Cheikh baaba ak mbokki bi yi nga xam ne moom la àndal ci liggéey bi mu nekk ku nu ràññee ci kër Serigne Modou kon sëñ Allé ñu ngi lay jox kàddu gi nga jottali say kàddu rek sa diggante sa Serigne waaye sa diggante sa mbokki taalibe bi loo leen di dolli ci Serigne bi bisimilah. bisimilah asalaamaaleykum ñu ngi sant yàlla ak yéen tamit sëñ Tuubaa di sant sëñ Bassirou Ndir mii nga xamante ne mooy suñu kilifa di rekk sëñ bi. di sant sant waa Santhiou Mbuso bi ñëpp nga xamante ne bis mi ñoom ñoo ko moom comme na ma ko sëñ Bala waxee nag ba ma koy nan dem ci ñi di wàcc kaay bi dana bis mi ñoo ko moom kon sant nanu leen gërëm nañu leen yar na yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa yokk suñu fan ah nun nag donga yi noo ngi fas yéene doon taalibe bi rek na ngeen doolee ñaanal man sama dongaay morom yi rek laay sant nu doolee góorgóorlu ci kër sëñ bi jàpp moom ku ne xam na ko waaye sëriñ ak ab tool ak kërëyam ku ca jàpp xam na ko yàlla nu yàlla doole jàpp ñu doon koy góorgóorlu nu loolu noo defi bi nun nag euh, mun noo wax yàlla nu yàlla doole jàppale waaye daal wax dëgg yàlla xam nañu fan leen teg xam nañ li ñu noo ngi leen jéggal na xam nañ sëñ baaba sëñ baaba am nañ lu suñu wax xam nañ ko sëñ Mourou Ndié mi doy ci lépp yàlla nu yàlla doole jàpp sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp sant nañu Moussa gépp noo ngi jërëjëf Serigne Alla Ndiaye doon wax ci turu taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi. Euh, di jottali ak cantam ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi ci kër Serigne Mamadou Ndir gi ci ñuy nekk ci toolu Serigne Baba euh, noonu ma ko wax rek noonu la seen pas-pas ràññee nañ ko bu baax a baax euh, yëg ràññee nañu seen ak yëngu ràññee nañu seen bëgg ci Serigne bi waxtu nekk ñu ci gën di dolli ko mu mel ni rek Serigne bi mi ngi toog di kenn ci njabootu Serigne bi ku ñuy wax Serigne Bassirou Ndir yore kaddu xalifa bi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaara mu mel ni mi ngi làng ak kilifaam di Serigne Mourou Makhtar Ndir moom it di kenn ci njabootu sëriñ bi euh, noonu rek la jataay bi demee ñii ñëpp ngeen gis ñu toog ñenn ñi ay doom lañu ñenn ñi ay sët lañu ñenn ñi ay taalibe lañu kenn ku nekk jóge ci béréb yoo xam ne dañoo fasantikoo ñëw fi ngir di sàkku si tuyaaba ci bis bi ak di dundal si bis bi ak la nga xam ne moom la ñu fi taaroon si rek muy ay yoo xam ne dañ koy dolli ko ci sëriñ bi kon ñu jox kàddu gi euh, ki nga xam ne mooy sëriñ Basiiru Ndiir di doom ci sëriñ Baaba Ndiir di taalibu sëriñ Mouhamadou Ndiir Lambaay di koo xam ne kenn la ci njabootu sëriñ bi mu yore kàddu sëriñ bi kon sëriñ basiru Ndiir bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا mbokki taalibe yi noo sant yàlla te julli ci Seydina Mohamed ak i saabaam di leen sant bu baax te di leen jaajëfal ci coono yi coono bi nag ki ñu koy sonnal ku jara sonnal la ko am ak pay la ndax làmbtu dañu kon ne fii la sëggal tibb mu sëgg tibb ba doyal loolee it ba mu ko tibbee àdduna ji taxutan mu tibb ko fa nga xam ne fa jafe fa ko ñëpp bëgg fa la ko fa la ko dencal ba bu ëllëgee dinañu xam ne tibbal na dinañu xam ne tibbali nañu ko noo ngi leen di xamal ne nun ñii ci sunu bopp day ay taalibe lañu taalibe ak sëriñ ba nag déglu ndigal moytu tere bul tooñ ko la tooñ boo ko mënee jéggal jéggal ko loolu mooy wàllu taalibe mooy wàllu sëriñ ak taalibe kon lépp lu ngeen bëgg maa ngi ñaan sunu borom loolee su gënee ci yéen yàlla na leen ko defal jitaay bii nu toogit noo ngi ñaan yàlla na ko fi toogal nag ni siy diwén noo ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm bu baax rafet la nanu seen ab liggéey kii nga xam ne moo fi nekkal sëriñ baaba di sëriñ muudu maa ngi koy ñaanal ak woyof ca yaramu ak mu yàgg fi nu yàgg fi ndax ba mu toogee di sëñ baaba doon mëndir fa booy ma sukk fi kanam lal ma ne Basiiru ma ne ko Mbàkke ma ne ma feeg maa ngi fi lu waay tàmbali dina yegg ku tàmbaliwul nag du ma ne ko jërëjëf na ngay ñaanal njaboot gi lu ñuy yéene bëgg nañoo liggéey waaye amuñu kattan mu ne ma nañu tàllal seen loxo yàlla lu jot sëñ baaba dina ko def te bañ a yàkkamti yàkkamti baaxut ci ndaw baaxut ci mag tey nu góor lu ci jaamu yàlla ndax looloo na fi sunu borom andi te farlu ci bu baax yar gone yi xaj jigéen ñi lépp mag ñi daan def mënta mëntata nekk waaye nun ñii de ci lañu sax ba ba nuy dee dem ca tool ya jàng alxuraan lu nu waaye wërsëgale doy doonu leneen soxlawlu ko soxlaaw ma mbooloo bu ma topp soxlaaw ma ku ma soxlaa ma dégg nga maam ku teg sama der bi dara fi ma xool dara mënta tex ma xef jéego yi ma sëqi dara mënta tee ma di ko dox ci loolu laay saxit ba keroog may fekk sëñ baaba ndax loolu yi lañu dénkan 62 lañu ko dénk 63 la wàccab liggéey kuy mag ci dëkk bi te dëgg njobootam mu dajale leen na ngeen yar gone yi dem ci tool yi jàngal xuraan xaj yi jigéen ñi fii daay fenceeg yéen du ma fenceeg yéen yow man xeyam bu nu fa yeggee ne ku ma gisul man baaba ci yow la kenn nit liwu ma ko maa ngi kon na leen góorgóorlu ci jaamu yàlla nanu yar gone yi te xaj yi jigéen ñi li leen di yàq bari na tubaab bi du dellu ginnaaw mukk noo ngi leen di sant di leen jaajëfal tey ñaan nu teewaat ko na gën a sii déwén te dëgg ni si dàqanu suñu nag réen yàlla defal nu ci réew mi jàmm def ko ci bitim réew ci sayr ak ci baatin yàlla mën na ko yomb na ko yàlla na defal ci barkeb sëñ Touba mi fi nekk di Cheikh Mountakha jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, kooku doon yëkkati kàddu yi mu di Cheikh Mouhamadou Bassirou Ndir euh, di njaboot di kenn ci njabootu Serigne bi di jaajëf bu baax euh, média groupe Serigne Kom ñi ngi ngeen gis ne waxtu wu nekk rek bu bis bi tolloo fii nii mu ko doon defee rek noonu la ko doon defee kon ñi ngi sàkku rek ci ci sëñ bi nga dolli ko ñaan moom it ba lii nga xam ne ci lay yëngu fi mu bëgg mu àgg fi rek mu àgg fa lépp mu àgg fa mu fi mu bëgg liggéey bi yaatoo rek mu gën a yaatoo noonu bis bi na ko te loolu la ci sàkku ndax euh, li tax ma ko ci sàkku mooy wax liggéey bi rek moom la ciy too waaye yaa ca des yëpp da ko bàyyi ngir bëgg liggéeyam bi àgg fi mu ko bëggee fa mu ko fa ko séentoo te li mu jàpp na moo ko mën a may rek mooy bis bi mel nii di andi bu baax cantoo waa daay daayira bi yëpp ci mboolem ñu fi teew di gis ngeen gis ñu teew fi mooy communauté organisation bi nga xam ne ñooy yore màggal gi muy ndawi dëkk bi a a yóbbu a nga xam ne fi lañ dëkk dëkk bi euh, nañ ko na di defee ñu defee ko noona ndax dëkk bi euh, xam ne ni ngeen ko waxee rek cosaanu dëkk bi sabab bi ba ma wëgsi fii lépp nekk ci ay ndigal ak i tegtal yoo xam ne kenn ku nekk xam na ne njariñ lu lu dog euh, kon ñu ngi sàkku baax nga doole ñaanal ndaw yi fi daje yëpp wasalaamaaleykum euh, wa rahmatullah jërë ngeen jëf آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا بكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون